parce que Ousmane hier condamné nañu Ousmane Sonko euh, li amoon mars deux mille vingt et un malgré les appels répétitifs les Sénégalais ne sont pas ne sont sortis ñu ngi dem vers un procès le 16 mai est-ce que les Sénégalais ne semblent pas vous dire utiliser les moyens démocratiques légaux Ousmane Sonko condamné nañu ko démba il peut se pouvoir en, en, en cassation il a un délai de de de, six jours yaa ma gën a maîtriser euh, les questions judiciaires euh, njëkkoon nañu ko njëkkoon nañu ko am na sentence bu bu njëkkoon wadd en première instance euh, il garde il conservait ses ses ses ses ses ses ses, ses droits euh, civils et, et politiques il peut se pouvoir en en cassation euh, procès Ousmane Sonko Adji pourquoi du dem ci procès bi pourquoi ñu bëgg a ne euh, nañu arrêté loolu yëpp ñu investir le champ du combat de la contestation de la désobéissance civile et de la résistance est-ce que sénégalais yi en en en bu ñu bu ñu dul génn léegi yenn yi di am est-ce que il ne semble pas vous indiquer la voie. man mënuma ma la bàyyi yow nga apprécier événement politique ak fi ñu jëm d'autant plus que yaa ay voies de recours des na. Mm-hmm. du dëgg mm-hmm. ba xam nit dina ko exercer wala du ko exercer d'autant plus que le débat est là mënoo ay événements politiques ci benn fan ci ñaari fan c'est extrêmement euh, important soyez plus clair maanaam mm-hmm. mars 2021 bi ñu jiiñee président Ousmane Sonko ne dafa dafa violé muy ay tappale vendredi bi mu am vendredi nit ñi dem nañ julli juma. donc tout peut se passer loolu nga bëgg a wax bàyyi ma pare rek. Mhm. vendredi ñi dem nañ julli juma ngoon nit ñi dem nañ xadra samedi ñii dem soirée dem nañ soirée de ñii dem fubali DSC dem nañ fubali DSC dimanche ñii dem ci église dem nañ ci église yi professé wu. lundi la nit ñi dem kër président Ousmane Sonko bi fa li fa xew xewee ba ñi ñi timis jot ñibbi seen kër yi toog dañ trois semaines dara xewaatu. donc on ne présager de ce qui va ñoom toog nañ jàpp nañ ne tuutee est réglé. non waxuma tout est réglé dama ne. waaw dama la bëgg a wax ne la on n'apprécie pas des événements politiques surtout ci loo xam ne sur le plan judiciaire am na luy dox te pareegul sur le plan politique <laughs> li des bëri na de li des ak bëri. donc il peut se passer beaucoup de chose am na loo xam ne sax mun naa mun mun naa la ko wax. Hmm. lu simple. Hmm. am na ñoo xam ne. non seulement loolu du réussir Sénégal de mais am na ñoo xam ne dem nañ ba jàpp ne damm nañ nit ñi ba toogaat ba ba ba installé laajal IBK jeexalul sax mandaawam on ne le souhaite pas dans ce rupture de l'ordre constitutionnel non non ah rupture de l'ordre constitutionnel c'est-à-dire est-ce que peuple burkinabé suñu bëggoon suñu mënoon a soppi Blaise Compaoré dinañ ko jëlee ni ñu ko jëlee nii est-ce que peuple soudanais suñu mënoon soppi Omar El Bachir jëlee ko fa par les unis nañ ko fa jëlee ni ñu ko fa jëlee est-ce que peuple égyptien suñu mënoon def loolu pour Moubarak est peuple tunisien bu ñu mënoon def loolu pour Ben Ali est peuple syrien suñu mënoon def loolu pour Bachar Assad donte nguur gi daanuwul dinañ jël dëkk bi pendant fukki at mu nekk ci guerre ñaanu ñu ko yàlla yàlla bu mu am Sénégal parce que <laughs> fii nañ dëkkale kon bu waa ñëpp koy yàlla bu mu am Sénégal waaye am na loo xam boo jàppoon ne réussir nga ko ba jàpp ne yow mate nga ñëpp ut nga troisième mandat toogaat nga bu sa xel mu sa dal parce que da fàtt bunt yëpp nit ñi sa kaw lañuy ñuy jëmi loolu loolu ku xamul histoire mu koy rappeler keroog dimanche c'est-à-dire day jox ay porte de sortie Macky Sall nguur yi fi jaar ci histoire c'est-à-dire ñi si dellu si muy muy muy depuis printemps ak léegi depuis nit maanaam nit ci histoire nguur à chaque fois même tubaab bi dañ koo comprendre ba ay esclavage ay colonisation à chaque fois bu ñu nee ba xam ne war na jeex ñoom dañuy anticiper indil la beneen système de domination mais may la ay ay. mais mais mais mais mais pour le moment Afrique rek ngay gis. Mhm. nit toog di dóor sa kaw di di mais loolu dafay jeex tey la suba la gannaaw suba la semaine bii di ñëw la fii ak deux ans la mais dafay jeex. nga président ne ko Sonko ne ko président Ousmane Sonko ne ko ala kulli xaalim. te loolu la wax magistrat kii dootul gouverner Sénégal à partir de deux mille vingt quatre te loolu <laughs> wax jooju gars yi décorté guñ ko de saa mérite des des des réflexions saa mérite des émissions pour ñu xam ne <laughs> mais boo jàppee ne réussir nga ba jàpp ne waaw force RSE à la loi félicitations boobu la yeneen méthode de lutte yoo xam ne kenn ñaanu ko te kenn digalu ko peuple mun mën nañ fa dugg. te loolu mais mais mais pour le moment